ñu fi daje tey mooy euh, euh, ñu euh, valider li nga xamante ni mooy plan stratégique bu état civil bu Sénégal validation boobu nag depuis at ñu ci liggéey amna aspect yo xamni fi dañu ko valider mën nañ ko valider am aspect yo xamni tamit fokk ñu yobbu ko ba ci gouvernement bi yobbu ko ci président de la République surtout les aspects financiers pour man ko dëggal mën nak djublu jublu ci lo xamanteni mo ñuy permettre ñu réaliser ko ñun ñep xam nañu importance état civil ndax nit bu juddoo keet bi mu wara a am moy bulletin de naissance lolu nak gis nañu Sénégal ni euh, am nañ ci ay djégo mais am batay dess des na am na ay zone yo xam ni du déclarer seen i seen doom bu ñu juddoo looloo tax ba bu ñuy sax dañuy dem ba ci biir wara passer examen duñ ko am mais ak système bi nga xam ni ñu koy taxawal moy le plan nekkal nekkal comme parce que nit pour mu nek day am këyit motax ñu tuddé plan bobu nekkal euh, ñun ci liggéey ak Union européenne moy fukki milliards ak juroom ñett té plan bobu dinañu permettre ñu numériser digitaliser sécuriser li nga xamni moy l'état civil di jël données yépp nak di ko ci data center bi nekk Diamniadio nga xamni data center bobu day permettre données yooyu mu doon suñu fu bopp problème souveraineté la nationale sécurité nationale etc nga xam ne du amul kenn ku mën a stocké suñuy données ci bitim réew loolu nag di data center bi pare président Macky Sall taxawal ko système bii ñuy liggéey day liggéey ak ñoom pour données yooyu ñu defar ko donc euh, fii ak euh, ay ay ay fan bu ñu paree validation bi tey nga xam ni def nañ ko tey aspect financier yi nag nga xam ne mbirum koppar la laaj parce que wax nañu fii nii soixante-dix milliards lay demander stratégie nationale bi loolu nak daañu ko gëstuwaat xol ko bu baax liñ ci am ñu sécuriser ko liñ ci amul ñu mëna a waxtaan ci gouvernement bi ak euh, ak président Macky Sall pour mu mën ko valider ñu mën jublu nak ci liñ koy wuté pour liggéey ndax état civil mom amna solo lol pour askan wi